إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا السلام في الآل والأصحاب ربنا السلام حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام yoon sant bu baax a baax nga dangay sant Yàlla dafa mel na lu am solo la daje yu mel nii buñ ci ñëwee ñu di ko teewlu bu baax ndax dafay am lu am solo yu muy làmboo yoo xam ne soo ko teewloo man nga cee defar sa àdduna ak sa alaaxira bu dee ñi war a jiitu ci jariñoo jataay bi mooy ñi am yéeg yëg ci taxaw ci ad daawatul islaamiya képp koo xam ne bëgg nga dimbale yonent bi sallallahu alayhi wa ci jottalil ko wooteem bi ni mu ko santaane woon li yuballixa ashaahidu minkum alxayib war nga di fekkee jataay yu mel nii te di ko yittewoo ndax gone dafa rëy ci yàlla rëy ci eh, lislaam rëy ci nit ñu mag ñi ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ndax sunu boroom sunu boroom dafa wax ne ci hadiisul qudsi xalaqtu ibaadi hunafaa kullahum wa innahum atathum shayatin fajtalathum an diinihim nee sama jaam ñi bi ma leen bindee ñoom ñépp dañ ma gëm sellalal ma sama diine waaye shayatin yi ñoo leen dikkal di leen man manee di leen man manee di leen man mane ba génn leen ci diine loolu nag ci jamono bi ci lañ koy tàmbali moo tax dañuy war di laaj sax sardin ak daara lan moo ci ëpp solo ndax war nañ di fexe bu baax di njëkkanteeg sayaatin yi xale yi fexe ba suñ juddoo rek bala ñu lu ñuy jàng ñu jànge ko ci eh, kàddug yàlla ñuy jàng wax sardin xale bi dafiy jàng wax di fa jàng dégg di fa jàng gis suñ fexee ba li muy gis ak li muy dégg ak li muy wax lépp nekk baatu bi yàlla loolu dana nekk jéego bu rëy rëy ci njëkkante ko ak ak seytaane bi ci topp itam man-man yii fi xale yi jot a man jàng suratul ixlaas loolu dana rafetal njort képp ko xam ci ne xale boobu lii taxa mucc moom jox nañ ko ko ba noppi muy tawxiid ma yonent bi sallallahu alayhi newoon na al ixlaas taadilu thuluthul quran maanaam suuratul ixlaas mooy xul huwallaahu ahad boo xaajoon alquran ñetti xaaj mooy benn xaaj bi wax jooju lim làmboo dafa bari ndax maani alxuraan yépp boo ko xoolee ñetti xaaj la ñaari yépp ci tawxiid lay wax ndax paspas yi ak xisas yi maanaam pas yi ak nettali mbir yi nit ñu baax ñi jiitu woon nettali bi li muy jariñ mooy pas-pas kon alxuraan day jàngale paspas pas ba noppi di la ko jàngal ci wax la ñi jiituwoon niñ ko defe woon la ca topp daanaka mooy àtte yi loolu loolu mooy alxuraan kon boo boo xoolee daanaka sulusey ni ñaari xaaj yëpp daanaka day ñëw ci ci sourate Ixlaas te li ci yàlla wax dafa jàngale dafa doy ci jàngale pas-pas ndax pas-pas yi boo ko seetloo dafa am ñu gëm ñu fas ne yàlla dafa dafa am soxna am doom li indi woon ay saar wi wàcc mooy dafa am ñu doon laaj bi kan mooy yàlla yàlla ne ko wax leen ne yàlla day kenn la soo ne huwa allahu ahad dàq nga ci yàlla ñaari yàlla dàq nga ak limu ci yàlla boone nee allahul samad dàq nga ak aajowoo ci yàlla yàlla mooy ki nga xam ne amul aajo ci menn mbindeef te menn mbindeef mënu koo ñàkk mbindeef yëpp aajowoo jëm ci moom loolu mooy allahul samad boo nee lam yelid walam yulad dàq nga ci yàlla muy am doom ni ko ñeen ni borom pas-pas yi woote woon ne Isa inna la masin eh, ibnullah eh, boo ne walam yakun lahu kufuwan ahad amut ab nawle yàlla amutum nawle loolu bokk na ci li mu war a jariñ koy wax mooy mu nangu ak nawloonte bu la wóoree ne doo yàlla rek dangay nangu nawloo sa nawlay jaam yi ndax leen rek am ku amul nawle ak ku am nawle ku dul yàlla rek da am nawle boo dee malaaka am nga nawle boo dee nit am nga nawle boo dee jinne am nga nawle kon ku ne walam yakun loo kuf an ahad rek war ngaa mën a seetal sa bopp ci rëy war ngaa mën a nangu nawloonteeg eh, sa moroomi jaam yépp daanaka bu yemoon ci loolu mu doy bu dee ci wàllu culture bi itam loolu day aju ci wàllu islam bu dee ci wàllu culture bi itam wax naa ne foo dem ci àdduna bi ñi gën a ñor xale yi lañ gën a yittewoo dama cee am sama benn wóolëre day liggéey ak scientifique yu mag yi ci tugal mu may nettali koo xam ne moom scientifique yi dañ koo naw naw ragal ko ba nga xam ne su dajee su ñoom suñ suñ amee daje suñu amee daje ñoom scientifique yi bu ñëwee laaj yim leen di laaj da leen di jaaxal tontu ko da leen di jaaxal ba waaye muy wax ne nag bu ñuy tàmbali réunion bi da leen di wax ne man duma universitaire de waaye def naa 40 de recherche maanaam def naa ñeent fukki yoo xam ne gëstu rek laa koy def loolu nag tax ñoom ñu ragal ko lool mu di ma wax nag dama koo fekk mu toog ak xale yu mel nii nekk ci jox leen boo xam ne loolu dafay wane rek importance su xale ni mu tollu te loolu li ci lislaam jàngale nga dañ daan wax ne buñ lay wax melokaani yonent bi sallallahu alayhi wa dañ lay wax ne lu mu yàkkamti yàkkamti xale bi gën a tuuti mën na koo taxawloo loolu xam gim xam solos xale moo tax mu di ko def dafay mel ne nag euh, kilifay lislaam yi war nañoo jàngaat yu mel noonu bu baax a baax ndax ku sàggane say xale rek ñàkk say mag yow man xëy bu ñu la ko xoolalee bu baax li des lépp dañ koy may bu jàll nga xam bu baax nag mooy julli te loolu bi sala sam nee na képp koo bàyyi sa tariqa nga dina yàlla loolu moom tariqa wax na ko ci âge bu toll ko waaye li xam ñi lay wax parce que moom du dëggul loolu waaye nag xam na ko ba su màggee teel naa xam ne lii moom mooy li gën a màgg ci jaamu yàlla yi te su ko bàyyee rek rek yàlla kon ñun ñi fi nekk ñëpp xale bi xamal nañu ne ku ci nekk li yàlla àndal yow la ci gën a mën mooy julli dana ko war a taxawee dana ko war a taxawee soo ko bàyyee rek ci sa sàggan ak sa ñàkk foofu diine ak sa ñàkk yittewoo euh, julli boo ko xamal ne ko koy dee loolu moo am solo loo xam ni ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel sant sëñ Bass Sakho di sant Soda Sylla mi ak xadiloo mi ndax xale yi kat saa suñu xëyee ñoom dañuy yàkkamtee ñëw kon mel na ne gone yi ñii yaatal nañ leen koo ci xëy ne dangay jàngi su fekkoon ne fii dañ fi am leen naqari duñ fi yàkkamtee ñëw waaye xale yi buñ xëyee waaw buñ xëyee koo ci ne doo jàngi sax jaral na ko di jooy te ñun xale yi waxtu képp buñ ko amee ci ñun ñun ñu doyal sëg kon nag ñu sant xadiloo mi ak sooda leen sant bu baax a baax te xam ne ñun li mu manqué ñun ñun ñii la manqué waaw waaye ñoom matal ne ñun dañuy ñaan suñu borom fayal leen waaye ñun ñu seen fay yaatal nañ ko ne yaatal nañ leen yar nañ leen araf yi ñuy wax rek kenn amul fayam waaw xul allahu ahad benn araf woowu rek ku la ko jàngal sa doom amoo fayam kon ñu leen di ñaanal suñ borom may leen fan wu gudd waa ànd ak wér di ñaan nag suñ ñi nga xam ñooy yaaye xale yi ñu doon lee góorgóorlu ci xale yi di leen soñ ñuy jàng ndax lii daal ku ko xool ku ne rek war ngaa xam ne amul amul seen fay dañ leen di ñaanal daal suñu borom guddal seen fan te wéral seen i cër di ñaanal sëñ ba saaxo mii nga xam ne mooy seenub sëriñ te xam ne nag moom wax dëgg yàlla nii rek la ay soxnaam di mën a mel waaw jàng yaatal na xale yi yiir leen di leen toppatoo ñu ngi lay ñaanal sëñ ba saaxo soo bëgg a egg yàlla na nga fa egg yàlla sa soxla yi l'islam ñaata